Euh, salam alaikum, salam alaikum. Euh, Je ci léger retard bi euh, dañuy commencer léegi rek du ñu mën a xaar parce qu'ils vont reprendre la vidéo en ligne C'est un serviteur clé d'or ñëw tey doon am ak yéen benn waxtaan bu ndaw parce que me constater les plateau de télévision yi les journaux yi les revue de presse nous avons ñuy une campagne de. Euh, de de sabotage benn campagne pour semer ci beaucoup nit ñi benn doute sur la candidature de de de de Diomaye Faye donc campagne bi campagne de désinformation là, beaucoup de dañ ko orchestré donc euh, may fàttali rek ne ci troisième mandat bi a nañu ay nit ci plateau yi euh, outillé ay chroniqueurs pour ñuy prôner la thèse du troisième mandat Moi, jamono yu que voir wax ay deuxième quinquennat di une interprétation élastique de l'article 27 de la constitution bi nga nous devons dafa leeroon parce que dafa nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs Si mu nekk nii nag dem chroniqueur et ay journalistes gis sax plateau Sen TV dem ñuy semer confusion ci article L57 la candidature Bassour Diomaye Faye di def ci xelu nit ñi ni wa passef dañu dissoudre seen parti kon benn membre Pastef candidature am du recevable parce que L57 da koy tere tey ci revue de presse euh, ñëpp gis nañu ni loolu fësal nañ ko ci ba mu indi njàqare bu bëri man am na may doon woo pour di ma laaj ay leeral donc euh, leeral bi mooy loolu yëpp pour lëndëmal xelu askan bi la parce que da ngeen war a xam ni waa Pastef ay cuune am nañu. Euh, expert électoral am nañu ay cadre yo xamni maîtriser nañu nu élection di doxé. kon ñom ci contexte bi duñu def lenn lenn lenn lo xamni day annihiler sen chance manam day nénal sen chance ci bok ay élection kon tey jii li ñu retenir moy ci candidature Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye amul benn condamnation définitive parce que chef d'inculpation yi ko gal yépp kenn mënu ko ci àtte fii ak février ba àtte appel bi fii ak février ba àtte cour suprême fii février ba cassation l'olu c'est matériellement et temporellement impossible kon mom ci walu yone amul dara lu ko gàllankoor pour nous poser candidature légui L57 bi nit ñi di mbubboo ñi bëgg a nëxal xelu nit ñi dañ ci jël ben disposition bo xamni concerné wul Bassirou Diomaye Faye muy candidature indépendante pour fësal ko euh, pour jaxase xelu nit ñi léegi L57 ñëpp mën nañu dem ci Google tapé code électoral Sénégal ñu dem xool L57 loolu mooy jàngat bi gën wóor ci jàngat yi parce que léegi lépp mu ngi suñu porté war ñu contenté wu di déglu benn Clédor benn Amadou Ba benn Pape Alé mais na nañu dem gëstu suñu bopp ñu tiimal suñu bopp këyit yi jàngal ko suñu bopp L57 dafa ne les sénégalais mën na acte de candidature maanaam mën na pour bopp bokk ci élection sax daf ci daf ci sénégalais électeur donc euh, ñu jàppee ko sénégalais électeur acte de candidature léegi ñu ni acte de candidature boobu ci ñetti anam lañ ko mën porter bi ci parti politique légalement constitué moo lay investir ñaareel bi mooy coalition de partis politiques légalement constituée moo lay investir léegi nag ñaar yooyu kese ñoo concerné Bassirou Diomaye fay Basiru Diomaye bu ko neexee benn parti politique légalement constitué moo investir parce que ci allié Pastef yi bëri nañu am récépissé parti politique mais bu boobaa day obligé porter noowu parti politique parce que parti boobu moo investir bu dañu bassir Diomaye par exemple bu euh, euh récépissé rassemblement pour la vérité bu Cheikh Omar Diagne dañu investi par le parti rassemblement pour la vérité donc candidat au rassemblement pour la vérité les mais bu jëlé ñaari récépissé parce que coalition à partir de ñaari récépissé donc doo a jël ben ci parti yoy kon coalition bobu dang koy donc bu ko coalition bi mu tuddé ko coalition Sonko 2024 donte mon suis candidat comme nous avons une coalition Sonko 2029 nous avons ko tuddee neex mais coalition lay demain élection C'est là amul ben yon bu ci mën dara té mom choix entre mu déposer parrainage euh, des élus wala mu déposer parrainage citoyen kon mom amna tous les atouts en main pour que Pastef am candidat buy gagné bu féké ni ci walu yoon dem nañu ba ci ciupandaw ba ñu def lu leen neex ci walu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ay avocat am ba légui dañu japp ni mën nañu am dëgg ci walu yoon comme fi nak du réewu dëgg té ñëpp gis nañu depuis 2021 ba légui procès Ousmane Sonko biñ ko defal wuñ ci lu éliminer ko ci élection té ñom bañatuñ ci ñaaw parce que ñu ngi mer bay waté bañatuñ cee ñaaw kon ñun war nañu sóoraale parce que sóoraale na déjà au cas où ñoom ñu dem ba jalgati yoon parce que jalgati yoon weesuwul jugement définitif en première instance applicable en dernier ressort nous ne duñ ko exécuter parce que état dafa déposer recours cour suprême ñu dem cour suprême cour suprême ni nañ ko attewaat te moom jëlul benn dogal ba kenn ci attekat yi daal di gedd bañ a signer délibéré délibération bi donc loolu dalay won ni ñoom euh, dañu am problème pour sàn sàmmonteeg yoon kon tey jii bu ñu demoon ba ci cëppaandoo ba ñu xañ Ousmane Sonko mu dem Ousmane Sonko am na ku ko jëlal nguur gi am na ku pré représenté l'anti système bi war a suul système bi ci ay élections yii di ñëw parce que élections yi di ñëw dafa wuteeg élections yëpp parce que ñëpp dañu jël conscience ni ñu fi nekkoon ci indépendance ba léegi ñooñu teg mettit yi ñuy dund fi mu nekk nii te ñu am yaakaar ni système bobu dafa wara a jeex tak tak tak tak tak système bobu bu jeexé candidat anti système Ousmane Sonko le Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Omar Diagne de ñoo gëmul système bi mais mënul génn donc wa ak Cheikh Omar Diagne ñoo ñom comme candidat anti système léegi nak dénkaane ko wa ñu Sonko les patriotes au-delà de passif, parce qu'il y a des sonkistes je fais un coucou à Amidou bi que euh, Belgique Je pas euh, euh, waa Pastef ak ñi ànd ak Sonko nañu avons Sonko Non, la Sonko Bassirou Diomaye bénéficie de la confiance totale de Ousmane Sonko ce ku jege Ousmane Sonko deug, deug, deug, deug. xam rapport de confiance particulier yi mu am ak Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye moy ki nga xamné du ko mësa a war moy ki nga xamné bës bu nguur gi 31 juillet 2024 Dans notre assemblée nationale parce que l'objectif la élections législatives législative, askan bi dana volonté dana assemblée ñu bëgg mu nekkal leen fa muy bi élection locale yi nga euh euh teggol nañ ko fi danañ ko ba euh, euh, volonté populaire bi exprimé parce que voter nañ fi ay maire yo dañu mandat bi dem ko Macky votel nañ fi ay député yo xam ne yeewu askan bi dañu taxaw assemblée nationale di xeex Pastef kon tey jii jot Pastef jilat dayoom yépp donc bëss bu joto joté ci nguur gi limu muy njëkk def mooy restaurer la volonté populaire manam delloo askan bi batam ak kàddoom ak bëgg bëgg mu fessel ko ci ay élections yi nga xam ne ñoom danañu samp seen nit yi ñu bëgg kon koku rôle la bu Bassirou jomay fay mëna a assumer jusqu'au bout donc maa ngi ñuy xelu nit ñi naan est-ce que candidature Bassirou Diomaye nëbbul une candidature est-ce que est-ce que c'est le vrai plan de Pastef ñi naan sax c'est pas le vrai plan de Pastef je ne le crois pas Bassirou bu fekkee ni par extraordinaire delloowuñu Ousmane Sonko ay Akam ak ay yelleefam comme nous ko Sabasy Faye amul kenen kudul dul Bassirou Diomaye kuy dem parce que dafa leer parce que moom mën na téye mbir mi bu ko defee euh, ngeen am ñaari choix soit mu def un an def ay anticiper euh, organiser ay élection Ousmane Sonko ñëw jël soit mu àggali mandat euh, prochain mandat Ousmane Sonko ñëw jël mais de toute façon en attendant tout ça assemblée dañ koy changer maire yi dañ koy changer bu boobaa danañu xam Dakar kan moo fa majoritaire kan moo fa gagné. yenn arrondissement yi nga xam ne parce que Ousmane Sonko ci biir yeewi askan bi ci local yi ak législative yëpp dafa doon séddaate pour àndu nawle dafa sédd ñu bëri pour àndu nawle am na ci ñenn ñoo xam ne nag fayu ñu naar bi xoromam parce que delloowuñ ko li mu leen li mu leen li leen lebal donc euh, fi mu nekk ni ñu focus ci euh, candidature euh, Bassirou Diomaye Faye léegi ma ma jeexal rek ci L57 Nous naxal xelu nit ñi dañ leen bëgg a yóbbu ci troisième disposition L57 nee naa leen L57 dafa ni sénégalais euh, acte de candidature bépp sénégalais électeur acte de candidature boobu soit parti politique légalement constitué soit koy wala coalition de partis politiques légalement constitué wala personnalité indépendante Nous, ñu ni ñu définir lan personnalité indépendante ñu personnalité indépendante mooy ku mësuta militer ci parti politique mais Bassirou Diomaye mënul une personnalité indépendante kon parce que mës na militer ci un parti politique affaire dissolution kenn tudd ko ci L27 neen ko neen ko téléchargé ngeen xool ko amul benn dissolution buñ ci L57 L57 plutôt donc na ngeen ko vérifier dañu ne est personnalité indépendante celui qui n'a jamais milité dans un parti politique Bassirou Diomaye milite dans un parti politique il est numéro deux d'un parti politique wala Bok ñu ni qui a cessé toute activité politique pendant au moins un an wala ko dakkal activité du ci parti ci lu mat lu mu néew art. kon loolu yoonu Bassirou Diomaye nekku donc chroniqueur yek, journaliste yek, euh, borom journaux yi nga xam ne dañu bëgg a nëxal xelu nit ñi troisième disposition boobu la indi personnalité indépendante Bassirou Diomaye waxul kenn ni day dem en tant que personnalité indépendante kon tayji jii engouement bi commencé am déjà ci parrainage nagn ko maintenir ba ci élection yi nañu mobiliser pour élection yi parce que élection yi di ñëw ni njort ni moy gëna reuy taux de participation élection yi fi jaar yëpp parce que ñëpp danañu dem voter ci kon ñi jëleegul sen carte nañu jëli sen carte euh, décembre à janvier mo dox suñu digënté ak février ñaari wër yoyu dama kay fatali rek parce que ba légui nit ñu ngi nan 4 mois 4 mois dessu sax 3 mois décembre janvier mo dox suñu digënté ak février février lañu sommes En février le système est di dame inshallah février le système est di dame té pour système bi daanu nak il faut pas nous divertir. Nous divertir nañu focus ci parrainage après dogu pour dem voter massivement jëlé fi système bi jeexna muy Ousmane Sonko wala muy Bassirou Diomaye mais du génn ñaar ñooñu amul troisième éventualité kon tay ji wa Pastef sax di recommander moy ñu anticiper ci offre programmatique waxtane la nouvelle gouvernance bi ñuy proposer Sénégal waxtane solution yi ñu am ci bépp domaine d'activité

Nous jaay actif daw lu daw kon nekkul ñu ci njub kon Ousmane Sonko intérêt nekkul ci ça veut dire que ñu donc nous préparer la nouvelle gouvernance nañu wax ak Sénégalais Nous gën ñu divertir ci ay mënul candidat indépendant indépendant ñun Diomaye day nekk candidat indépendant Diomaye va se faire porter par une coalition té amna coalition buñu ba sos ba kon ngay dem ñu ngi la caravane est en train de passer donc ñi dañ leen raw lu donc xelu la rek la rek euh, euh, du parce que mu ngeen revue de presse day journal sax bu bind ni la candidature de se heurte à l'article L57 c'est pas vrai c'est pas vrai L'ol du Ben L57 xool tout Sénégalais peut peut peut faire acte de candidature tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature Macky Sall jaxase na suñu code électoral direct. tout Sénégalais moi ci nekkoon moi je may faté électeur moi moom que ko ci pour bari nit ñi L29 ak L30 donc tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature cette candidature doit être portée soit par un parti politique légalement constitué, première condition. Deuxième condition, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués. Troisième condition, soit par une personnalité indépendante. Bien sûr, définir comme quoi on musuta am activité politique ci un parti musuta bokk ci un parti wala ba mu bàyyee parti boobu mët na un an wala lu ko ëpp mët na un an gën kon Bassirou Diomaye fay mës na bok ci parti politique donc mënul nek candidat indépendant ñun ñu waxu candidat indépendant ñun candidat lañuy wax à l'élection présidentielle donc coalition bi amna coalition bu wara jappalé a Sonko ba paré la ko gis ngeen ko kon lu ñuy duggalé ci indépendant donc allié Ousmane Sonko yi amna ñu ay récépissé mais mais mais mais recommander rek fofu mais recommander fofu Pastef à la prudence ci récépissé yi muy démé élection parce que gisoon nañu fi ci élection locale en 2014 je crois euh, non législative en 2017 yi ci une liste nit euh Mansour Faye la euh ben récépissé moy coalition ñom Farba Ngom beeg Pape Samba Mboup euh, ki euh Mamadou Guissé dañu dem ba ci bir pour ay question 15 millions waa ji retiré récépissé yàqal gaañ élection yi passé législative yi passé gis chef Cheikh Al-San Sen, samp coalition am kenn ku sant Diallo ñëw récupérer kayit yépp ni coalition bi coalition am la daal ciy génnee al donc politique de bëri ay galgal parce que nguur gi bu la mënul dara mën na infiltrer ko la jox au dernier moment sax mu rocc ko mais nañu am plus de deux rek nañu am deux yu wóor nañu am deux yoo xam ne yu wóor a wóor a wóor la ñu demee ko élection lii daal moo doon solo waxtaan bi euh, bu fi kenn def campagne de désinformation buy jàll ci xelu patriote yi kon Bassirou Diomaye candidature am euh, dafa bénéficier de confiance Ousmane Sonko amul beneen plan pour passer, autre que Basirou Diomaye Faye te Ousmane Sonko n'a pas dit son dernier mot parce que dossier mu ngi suivre son cours ba légui té sur le plan du droit mom mo am deug ba légui parce que sinon kon euh, euh, euh, cour suprême da koy débouté day prononcer simplement déchéance mais da ko mënul motax mu renvoyer ko ci benen juridiction juridiction bobu tamit xawma fan lay jafandu ba prononcer déchéance mais en attendant loolu yépp comme ci digënté bobu parrainage da fay weesu parce que le 11 décembre lay jeex mais on lance Bassirou Diomaye et puis parrainage commence, commencé na gis ngeen animation politique bi commencé na na vivants, nous na effervescents vivant na gëna effervescent parce que loolu lañ ci jublu donc wa Touba ñu mention spéciale donc euh, vraiment loolu moy moy taxaway bi war et encore une fois élection yi di ñew taux de participation bi dina kawé lool lool lool parce que nit ñi dañu dogu pour jëlé fi li fi nek té li fi système bi ak ñepp ñi ko incarné donc euh, ñi nga xam ne dañu contre le système ñoo ñoo yore électorat bi nga xam ni mooy compté fi mu nekk ni mooy ñoo majoritaire kon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi koy yemale fii euh, pour mu bañ a gudd